asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki groupe Arahma ñu ngi leen di nuyu xam ngeen ne suñu émission bi nga xamante ne dafa jëm ci xam-xam te mbokk mu baax dañu ko defal Cheikh Mouhamad Amin Diop fële ci Arabie Saoudite démb ci altine ci la waroon a jàll waaye nag xam ngeen ne léeg-léeg nit ki ay waxtoom day am yu ci gàllankoor ba tax na mënuñ ko war a def kon incha allah. ñu ngi dalal suñu bokk Cheikh Mouhamadou Amine mu ñëw ci émission boobu jëm ci wàllu xam-xam mu am solo lool kon ñu bokk ko teewlu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu waa Samb ñu ngi leen nuyu di nuyu waa groupe yëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm defal leen ko yal na yàlla barkeel kër gi comme ni mu ko waxee démb dañoo xawoon am ab gàllankoor génnoon xaw a guddee si lool waaye mbokk yi macha allah seen xër Euh, bëgguñu darse bi dara moo taxoon ñu ne nañ koo jàppal euh, bis bi def ko ci heure bi incha allahu taala ñu ñaan yàlla subhanahu taala defal ñu jàmm defal leen ko kon tey incha allah ñu ñëw ci almanhajiyatu fi talabil ilm mooy ci yoon wi ñu war a jaar ci bu fekkee ne bëgg nañ sàkku xam-xam incha allah ci la ñuy wax barakallahu fikum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal leen ko waaw comme ni ñu ko waxee rek Euh, ñëw yeggali suñu silsila bi nga xamante ni tàmbali nañ ko depuis bu yàgg euh, tey jii nag ñu jël al manhajiyatu fi talab al ilm mooy ci wan yoon lañuy jaar bu fekkee ni bëgg nañ nag sàkku xam-xam liñ ci nam mooy wax dëgg yàlla nga jaar ci yoon boo xamante ni yoon bu jaar yoon la ba pare diir boo xamante ni wax dëgg yàlla du nekk diir bu gudd lool waaye bu la yàlla defalee tawfiq di nga ci mën a fàgg loo xamante ni macha allah lu barkeel la tamit lu bari la. ànd ak loolu nak xam-xam mom wax deug yàlla lo jàng jàng jàng jàng jàng lo nek kang fóore kang fóore kang fóore batay la ngay xam as tout la ndax yàlla mo ne ma utitu min al ilmi illa qalilan ndax ki am xam-xam bu mat seuk wax deug yàlla moy borom bi subhanahu wa taala moy al alim kon waye nak amna na yoon woo xamante ne dëgg yàlla bako ko mu nek yoon wuñ xam te borom xam jaaroon ci al manhajiyya ci ni ngay sàkku xam-xam wax deug yàlla amana nga am as tuut تخمخم كون نكو علي بن ابي طالب دون وخيرك العلم نطفه نطفه ام نكاي سولو نقطه كثرها الجاهلون خمخم اب لومبلا واي نك ني ني نيوكو باريل على كل حال دو ادم دو دنج دي جانغ با كيروك موي دوغ بير باميل الامام احمد رحمه الله تعالى آه، بن كو غيسون فوم تول رك ديسان امام اهل السنه والجماعه عندك لول فوم تول مي دون يور اي خليم اك دادي بنت واو بن كو لاي امام لي نك من المحبره الى المق maqaam ci daaj kon wax dëgg yàlla loolu nekk na lu am solo ala kulli xaal almanhajiya fi talab al ilm mooy yoon wi ngay jaar ngir sàkku xam-xam borom xam wax nañ ci wax yu bëree bëri bëri yu yaatoo yaatu waaye amaan na ñu wax ni am na yoo xamante ne daanaka xaw nañ ci rek dëppoo wala ñoom ñëpp wax nañ ko mu nekk loo xamante ni lu am solo la bi njëkk mooy Euh, xam-xam bi ngay jàng xam bi nga xam dafa jaadu nga jàng ko xam bi nga xamante ni dafa am li nga xamante ni moom mooy ak al al awlawiya mooy priorité pour nga jàng ko ban xam parce que gis nañ ñu bari yoo xam ne dañuy commencé fu leen neex commencé fii dem jël matière bi ñëw jël matière bi daanaka boobaa deful ndànk wax dëgg yàlla doo am loo xamante ni li nga doon séntu la kon xam bi nga xamante ni dafa jaadu nit ki jàng ko mu nekk xam-xam boo xamante ni bu mënta ñàkk la ci jullit wala dafa war ci moom. mooy xam-xam bi nga xamante ni dafa aju ci wàllu diineem rawatina ci wàllu pas-pas rawatina ci wàllu jaamu yàllaam yi yi nga xam ne ay farata la ci moom kon loolu mooy li gën a yell jullit bi jiital ko balaa moo dem di gëstu yeneen xam-xam ndax dinañ ci ñëw am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ñuy gëstu yoo xamante ne amul relation ak li ñuy pratique ci seen ci seen dund waaw sa wàllu pas-pas ni ngay jullee rawatina loo xam daf laa war loolu nga war ci gën a géeju xam na koy defee mais duñ ko def dañuy dem nekk ci yeneen ak yeneen ak yeneen loolu tamit lu jar a bàyyi xel la kon xam-xam bi jiitu bi gën a yell nga tàmbalee nga tàmbalee ci di ko jàng mooy xam-xam bi aju ci say wàllu fara ayn jiital ci li nga xam te mooy pas-pas awalu ma yajib ala al mukallaf tasxiixu imaanihi waaw kon yitte yittewoo tamit aju sa wàllu jaamu yàlla say julli ni ngay wooree bu fekkee dem nga ba soxla azaka nga jàng ko xam ci ay faram-fàcce bu dem nga bor aj màkk nga góorgóorlu ci mais li nga xamante ni lu mënta ñàkk da nga koy def chaque jour mu nekk pratique boo xamante ni euh, quotidien la mooy li nga booy waat war a waat booy wax loo xamante ni dafa aju ci wàllu pas-pas nag nga war a waxee kon loolu lu mënta ñàkk moom nga war a njëkk a jiital gën koo yittewoo ci yeneen xam-xam yi. nga a njëkk a jiital ci boo koy jàng moy xam-xam bi nga xam dañ koy taataanee nak ci alquran ak sunna lolou bu ko fàtte lolou lu mënta ñàkk tamit parce que al ilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala alsahabatu laysa khulfun fihi ma al ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna an nusus wa bayna ra'i safihin comme ni ko qayyim qayim jëlee ci alam al muqin wala i'lam al muqin kon xam-xam buñ ko wax xam-xam bobu nga wara jàng nak nga aju ci sa walu jaamu yàlla sa furudul ayna xam-xam boobu da nga koy taataane ci yàlla nee na yonent bi nee na saxaaba yi nii lañ ko jëfee woon lii mooy li nga xamante ni julit bi ci la war a tënku kon nekkul ni xam-xam boobu nga war a jàng nu la neex nga koy jàng ak fu la neex nga koy taataane mais da koy taataane ci alquran ak ci sunna yonent bi alayhi salaam ci dégginu li nga xamante ni moom mooy moom mooy saxaaba yi lépp la yonent bi tere. nga bàyyi ko ba mu set wicc waaye lu mu la digal nga dikkee ko sa kem kàttan ida nahaytukum an shayin fajtanibuhu wa ah, bi amrin fatu minhu mastataatum waaye fekkee digal na la dara wax dëgg yàlla nga dikkee sa kem kàttan maam bu ci gàttañ kon julit bi day góorgóorlu di tàmbalee ci xam li nga xamante mooy masailul xaraam wal xalaal waaw li dagan ci moom ak li nga xamante ne dafa xaraam ci moom waaye mu taataanee ko nag ci njàngale yonent bi alayhi salaam ci dégginu saxaaba yi te lislaam boobu mooy alquran ak sunna ci dégginu saxaaba yi lu mënta ñàkk la kon faw jullit bi teewoo lii xam ko xam bu wér bu ko defee mu mën am li nga xamante ni mooy mucc ndax bu duggee ci bàmmeel loolu mooy li nga xamante ni moo koy jëriñ. waa mbokk yi kon bu loolu leeree am na beneen masala boo xamante ni nag bu jar a bàyyi xel la lool lool mooy bépp xam-xam boo xamante ni yow mi nekk sax ci euh, euh, tàmbarikaayu sàkku xam-xam rawatina du ci juddoo li ñu tuddi ak tatbiqul amali boo ko mënee sori mooy li gën ndax dina la tardeel wax dëgg yàlla yàq sa temps te la nga xamante ne moom nga ci doon séntu doo ko am tey na gis nañ ñu bëri ndeysaan ci ñii sàkku xam-xam rawatina dañuy bëgg mbir yoo xam mbir yu raar la moo tax imam alimam malik rahimahullah taala doon wax ne charrul ilm al garib waaw li gën a yées ci xam-xam mooy nit ki bëgg lu raar ci xam-xam day bëgg indi benn masala boo xamante ni bu raar la bu ko xamante ne moom bu ko déggee danaan yo lii nan la mën nekkee ko defee di ci gëstu fekk masala ba boo ko xoolee dëgg dëgg dëgg amul li nga xamante mooy wàllu pratique moo tax bokkuloon ci manhaju saxaaba yi di xuus ci loo xamante ni daanaka amul leen jural li nga xamante ne mooy njariñ moo tax yow mi nga xamante ni yaa nekk ci tàmbalikaay sàkku xam-xam faaw nga sóoraal loolu bu baax a baax a baax amaan nag boo xam yi nga xam dem nañ ba xóot ci xam-xam amaana yoo xam mën nañ ko jàng wala buñ toogee am temps liir koo yu mel parce que amaana ñu mën leen laaj wala yu ni mel amaa yow mi nga xam yaa nekk ci tàmbalikaay watandiko loolu bu baax a baax parce que loolu day dugg ci li nga xam mooy takalluf doomu aadama di incarné yoo xamante ne wax dëgg yàlla dañ ko tere yàlla subhanahu wa taala mu ne qul ma asalukum alayhi min ajr wa ma ana min al mutakallifin waaw wa ma ana min al mutakallifin kon takalluf dañ koo tere li nga xamante ne mooy adam di tek sa bopp coona moo tax subhanallah boo xoolee xam-xam dafa am li nga xamante ne mooy lu mënta ñàkk la ak loo xamante ni xam lu mënta ñàkk comme ni ñu ko junjee ci sànq ci kaw mooy xam-xam xam dafa aju ci say furudul ayn say farata yi nga xamante ni yu mënta ñàkk la kenn ku ci nekk lu mënta ñàkk la mu taxawee ko am ci xam-xam yoo xamante ni ci min baabil xaajaat la waaw aajo woon ko rek nga jàng ko am yoo xamante ni min baabil taxsin yi xam-xam yoo xamante ni pour rafetal sa xam-xam la rek pour rafetal sa xam-xam la kon yooyu yëpp faaw nag bokkuñu ay dayo benn bu ci nekk faaw am yoo xamante sax aslan du xam-xam aslan maam charia reconnaître ni xam-xam la par exemple nañ jël exemple pour mu leer bu ñu xoolee yonente bi islam bi ñu ñëwee laaj naan ko yasalunaka anil ahilla waaw ñoom li taxoon ñuy laaj Euh, mooy naan ko lan moo tax léegi weer wi buy doog a tàmbali ñu koy tuddee hilaal mooy day mel ni euh, benn cercle bu ndaw lay doon mel ni euh, li nga xamante mooy wëñ waaw lan moo tax bu demee ba ci yàgg di yëkkati ko dem ba ci digg mu nekk baddër mooy leer na naññ naññ bu fekkee dem nañ ba egg ci li nga xamante ne mooy weer wi am na fukki fan ak juróom yu ni mel wala fukki fan ak ñett ñeent juróom la moo tax weer bi di déclenché wu maam di jugee fi nga xamante ne fa commencé woon di màgg di màgg di màgg dem ba nga xamante ne ci ñoom waxtal bi mais yàlla subhanahu wa taala bi ñu laajee loolu xam nañ loolu amul leen benn njëriñ waaw lu mu leen tont dafa ne qul hiya mawaqitu linnaas ne leen daal wax dëgg yàlla ay mawaqit linnaas wal hajj pour ñu mën cee xàmmee li nga xamante ni moom mooy heure yi nga xamante ni ak suñu rendez rendez-vous yeeg ak xam aj kañ la kon loolu leen tont mais pas ñëw foofu di leen tont naan non bu fekkee dem ba ci digg bi day toll nii bu fekkee kon xam-xam yooyu wax dëgg yàlla doomu aadama amalu ko njariñ waaw donte sa bu ko xamee après fii ma baal bu demee ba xóot ci xam-xam amul benn problème waaye yàlla li ñu bëgg a fay dafa bëgg a jàngale leen mooy la ñu laaj ak mu leen tontu bokkul moo tax loolu tamit bokk na ci pédagogie ki nga xamante ni borom xam-xam bu nit ki ñëwee ko laaj dara mu tontu ko loo xamante ni moo koy jëriñ kon dañuy gis ni wax dëgg yàlla loolu lu mënta ñàkk képp koo xam mi ngi sàkku xam-xam rawatina ki nekk ci bi mu daan koy xam même ki nga xam dem na xóot ci xam-xam am na yoo xamante ni daanaka wax dëgg yàlla euh, du la njariñ bi nga xamante ni dëgg-dëgg moom moo lay jëriñ wàllu pratique te loolu daf ci am solo mooy boole xam-xam ci wàllu li nga xamante ni mooy théorie bi ak li nga xamante mooy pratique bu ñu xoolee ci alxuraan par exemple euh, gars yi ñëw di laaj yonent bi alayhi salaam wala ki ñëwoon laaj yonent bi alayhi salaam ni ko mata saa kañ la bisum penc yonent bi alayhi salaam lu ko tontu mu ne ko maada aadata laha lan nga ko lan nga ko préparé kon loolu mooy li solo foofu mais pas mu xam bisum penc kañ laa wala euh, nekkul kañ loolu sax kenn xam ko ku dul kudul yàlla subhanahu wa taala moo tax ci ay alquran yu bari bari bari borom bi subhanahu wa taala bi nga xamanteni laaj na yonent bi isalunaka anis saa lu koy wax qul innama ilmu inda allah ci araf isalunaka anis saa yaana mursaa qul innama ilmu inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu yàlla dong ko xam ni ki noonu tamit suut ahzab yasaluka annaas ani saa qul innama ilmu inda allah wa ma yudrika laalla saa takunu qariba ci suutu naziat ki noonu يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها يسنغ. إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشها يسنغ. كون نك تدو أرم لكو يتل موي لا يونتي بتونتون واجي بيمني لاكو متى الساعة كاين لي بيسون منكو ماذا أعددت لها لوكو بريبارل لوكو بريبارل كون موي موي جيف جو باخ اك مايتنديكو سافان kon lii mooy li am solo moo tax ki nga xamante ne moo nekk ci sàkku xam-xam wax dëgg yàlla yu ni daf ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy lépp loo xam ne bépp xam-xam boo xamante ne njariñ amul pratique bu ci juddoo nga sori ko te yittewoo li nga xamante ni mooy mooy li pratique di juddoo boo xoolee tamit ba tey yàlla wax ji waxoon ni wa yasalunaka ani ruux bi ñëwee laaj yonent lan mooy ruux lu mu leen wax quli ruux min amri rabbi day na sëkk waaw quli ruux min amri rabbi ruux moom wax dëgg yàlla ci mbiru borom bi subhanahu wa taala la kon laajal li nga xamante ni moo lay jëriñ loolu tamit lu mënta ñàkk la mbokk yi bu ñuy sàkku xamam nañu sàkku loo xamante day am pratique daf ñuy jëriñ ci suñu dund ak suñu alaxira moo tax loolu sax yenn borom xam nañ ni loolu day dugg ci yéen tamit li mu waxoon ni min xusni islaamil mari tarku maa la yaani waaw nit ki bokk na ci liy rafetal islaam mooy lu yoonam nekkul mu daat ko yeneen mu daat ci bañ a dugg bañ cee xuus waaw parce que di laaj ruux lan la mel ak lan mooy ruux ak dugg na fi génne fi xalaas xam la yàlla bind na doomu aadama def na ci moom ruux loolu nag borom bi rek ko xam kon loolu tamit lu jara a bàyyi xel la wallahu mustaan kon mbokk yi li nga xamante ne rek moo ñuy dimbali ci mbir mu ni mel mooy doomu aadama maytandiku buy sàkku xam-xam muy yittewoo yoo xamante ne ay xaraayib la ay xaraayib mooy mbir yoo xamante ne yu raar la moo tax comme ni ma ko tuxalee woon sànq al imam malik doon wax ne charrul ilmi al gharib xam-xam bi gën a yées ci xam-xam mooy xam-xam boo xamante ni bu raar la alimaamu Naxaay mu ni eh, borom xam dañ doon sib sax kuy jàng li nga xamante ni mooy garibul xadiis waaw di mooy yoo xamante ni yu raar la daal waaw am ñoo xamante ne loolu rek lañ bëgg raar ma mbax gaaw nañ bëgg nañ ci gaaw a jot rek wax dëgg yàlla keneen keneen jottali ko mais déedéet xam-xam wax dëgg yàlla bi ñu koy waxee mooy jàng loo xam daf lay jëriñ ci wàllu pratique loolu mooy li nga xamante ni mooy eh, samaratul ilm xam-xam meññit bi mooy moy li nga xamanteni moy al amal jëf kon jàng li ci sa moy da ngay jàng pour jëfe kon wax dëgg yàlla nañu may tiku lool moo tax al imam ahmad rahimahullah taala comme ni ko al asram nettalee nee na de benn waaye dafa ñëw laaj ko li nga xamanteni moy lu rar mu ni ndeysaan bàyyi nañ fi xam-xam dem di laaj yoo xamanteni mbir yu rar la mu ni ma aqal al fiq fihim ak ñoo ñàkk a dégg li nga xamanteni ni moom mooy diine kon amuñu fiq parce que am fiq da ngay jàng li nga xamanteni gis nga ni lii mooy loo xamante ne lay jëriñ euh, li ki noonu tamit bokk na ci yi nga xamante ni mën mënta ñàkk la mooy bu fekkee ni ki tàmbali ki nekk ci tàmbalikaay sàkku xam-xam muy teewoor yi ñu di tuddee ak tadarruj lu mën mënta ñàkk la tadarruj mooy escalier étape par étape te loolu mooy xam-xam da nga koy jël selon ni nga xamante ne noonu la sa xel tollu ndànk par ndànk bañ a yàkkamti parce que li ci am solo mooy lépp loo romb nga fexe koo maîtriser loolu képp ci am solo bu ko defee leneen lu ci tegu day ñëw tabax leneen lu ci tegu day ñëw tabax mais boo bëggandoo jëlandoo lépp waa problème nga am tey ku bëggoon tabax ab kër ba pare defandoo dal bi yaakaar naa ne sa kër day daanu kon da ngay tabax étape par étape étape par étape étape par étape ba dem ba lépp taxaw nga mën a teg dara ci kawam moo tax ndeysaan euh, la salaf doon wax rek man raama al ilma jumla dahaba anhu jumla man axada al ilma jumla dahaba anhu jumla xam-xam boo ko jëlandoo global noonu lay demee waat mais kon faaw ngay def ndànk-ndànk moo tax sax ndeysaan boo xoolee euh, yàlla subhanahu wa taala mu wax ci alquranu karim lu mu wax wa qaala alladina kafaru yéefar yi bi ñu wax naan law laa nuzila alayhi alquranu jumlatan waxida yonent bi xam lan moo tax wàcce wuñ quran ci moom benn yoon ci moom noonu rek golo ba wàcce ko noonu benn yoon yàlla lu mu wax kadalik gis nga ni ñoo ko wàccee mu nekk loo xamante ne lu taqaliko wala étape par étape mu lu tax yàlla mu li nu sabbita bihi fuaadaka wa rattalnaahu tartila allahu akbar ngir ñu saxal sa xol mën ci am ak dëgër lay ak sax moo tax ñu def ko wa rattalnaahu tartila ñu wàccee ko étape par étape gis nga kon li nga xamante ni mooy jël leen lu tuuti la ca topp topp ca la ca topp topp loolu lu mënta ñàkk la képp ko xam day jëlandoo lépp maam am ñoom dañoo xéer trop am xammaasa xéer wax dëgg yàlla xéer lu baax la waaye nag faaw ak loo xéer xéer faaw nga jaar ci yoon bi nga war jaar boo ko defulee après day échec di am échec boo xamante ni wax dëgg yàlla yàq temps lay doon. waaw kon euh, mi ngi noonu mbir yooyu am solo ñu jar bàyyi xel euh, bokk na ci tamit ba tey mooy euh, li ñuy tuddee al awlawiya li gën a nekk priorité loolu daanaka ñu joon nañ ko ci premier point bi waaye fii tax ñuy wax mooy nit ki bu fekkee nday mokkal muy doog a nekk ci tàmbalikaayu sàkku xam-xam na góorgóorlu ba mokkal li nga xamante ni mooy alwaxyayn alquran ak sunna jëm ci mokkal kem kàttanam parce que tàmbalee fa nga war tàmbalee tamit wax dëgg yàlla lu mënta ñàkk la nga mokkal la nga xamante ni mooy lu mënta ñàkk ci ki nga xamante ne mooy doog a sàkku xam-xam mais ku dem ba nekk mag par exemple parce que mag xam-xam mag da koy sàkku xale daf koy sàkku mais mën nga dem ba nekk mag wax dëggal kenn du la ni nga mokkal quran par doog a jël yeneen xam-xam yi non non parce que quran amaan dafa laaj temps mais mën nga boole ñaar yëpp selon sa li nga xamante ne mooy sa kattan waaye tamit parce que dégg quran tamit lu mënta ñàkk la parce que boo mokkaloon quran wax dëgg yàlla ay yiw yu bari bari bari la kenn werante ko waaye nag boo ko déggul tamit mën na laa indil sax ay jafe-jafe motax tax ku xam dem na ba nek mak tamit amana ñu dañ koy na nga yitté wo li nga xamante mooy compréhension ba pare han boole ko li nga xam moy mokal bi bo mënee boole yëpp tamit nek na am solo mais xale bi nga xamante ni mooy doog tàmbali ci sàkku sàkku xam-xam koku na yitté wo tamit di mokal li nga xamante ni mooy alquran ak sunna lata mo mokal ay yeen wax borom xam-xam ay yeen nangam nangam de parce que li nga xamante ni moy tatanu kay bi mooy alquran ak sunna kon lolu faaw mu yitté wo ko mokal ci lo xamante ni mën ko ci mokal kéem kattanam parce que moy li nga xamante moy masdar bi nga xamante ne mooy delluwaay mooy alquran ak sunna rawati alquran karim mokkal ko waaye tamit mokkal li nga xamante ne mooy sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam sa kéem kàttan loo ci mën a mokkal laata ngaa dugg ci ay yeneen xam-xam yi di xaabaabal waaw bokkoon tamit ci loolu lu mënta ñàkk la mooy xam-xam tam dee ko jëlee tamit bokk na ci lay résumé yoon bi gàttal nga ko mooy xam-xam koy jëlee ci al almashaayix mooy ñu xam ci maandu xam leen ci ragal yàlla xam leen ci pas-pas bu leer parce que ibnu sirin nam la ko doon waxee rek inna hada al ilma din fandur amman taxudu dinakum waaw lii di xam-xam diine la kon nag wax dëgg yàlla xool leen ci ki ngeen di jëlee seen diine parce que waroo jëlee ci diine koo xamante ni dafa am pas-pas bu bon ko parce que bu amee pas-pas mën na la ko ci dugalaayal te doo ko yëg koo xamante ni wax dëgg yàlla jaarul ci yoonu njub kon yooyu kenn warta jëlee ci ñoom diine ki ñuy jëlee ci ñoom diine mooy ku ñu xam ci njub ak mbaax ak woote ci quran ak sunna kon ñaari point yooyu mënta ñàkk la jëlee xam-xam fa nga ko war a jëlee waaye tamit góorgóorlu ba ci tàmbalikaay nga mokkal yi nga xamante ne yu mënta ñàkk la rawatina ki nekk ci tàmbalikaayu xam-xam te mooy alquran ak sunna bokk na ci li nga xamante ne tamit wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne gis nañ ko tey ci saaxa bi ci penc mi ñuy jàng xam di ko yittewoo mooy xir gi ñuy xir ba tàbbi ci li nga xamante ne mooy te duñ ko yëg waaw loolu mooy lan mooy dañuy xir bëgg lu nekk ñu xam ko jël fii jël fële jël fële cof fii cof fële cof fële yenn saa yi wallahi ladi laa ilaha illa boo deful ndànk da ngay nekk ku am culture ci xam-xam mais doo am xam-xam charia mais culture ngay am te loolu nag wax dëgg yàlla doy waar culture mooy lu fànn bu nekk am nga loo cof wax dëgg yàlla te loolu dafa nekk lu doy waar te tey moo moo tax sax boo xoolee tey borom xam-xam yi li am tey ci wàllu jamono lu amoon na bu yàgg mooy taxassus spécialisé wu ci lenn ñu xam ne fànn bi kii moom daf ko maîtriser fànn bee kii daf ko maîtriser waaw kii ci fiq rek la géeju donte xam na ngeen xam-xam yi kii ci xadis la géeju kii ci mbirum quran yu ni mel kon li ñu bëgg wax rek mooy yenn saa nit ki xéer mu tàbbiloo ci loo xamante ni fawda la te du ko yëg moo tax yenn saa yi gis ko xamante ni day tàmbale ci benn fànn benn xam jeexalu ko daal di tuxu ci beneen xam wala muy jàng ci benn cheikh benn xam-xam jeexalu ko daal di dem ci keneen di wër rek fu ne mu jël fa nangam bu ko defee finalement du am du am lu maîtriser dara dara du ko maîtriser li muy def rek mooy day am thaqaafa culture lay am ci xam te loolu tamit dafa nekk loo xamante ne lu doy waar parce que da yàq sa dund wax dëgg yàlla ci sa temps bépp ngay yàq te doo am len lo pek mo do borom xam njëkk yi ndeysaan boo xoolee lañ dan jàng sax danaka du bari parce que nekul bo xam téere yep lañ jàng de al imam ibnu baz rahimahullah taala ñom ci programme bi genné jangul sax ci université programme bi genné moy programme bo xam te 7 ans la won ibnu baz te xol kan moy ibnu baz 7 ans sen serigne moy mohammed Ibrahim mohammed Ibrahim mo len ko jàngal ki nekkoon mufti arabi saudi programme bo 7 ans rek la juróom-ñeerat ibnu baz ci la genné jeex na boo ci genné da ngay nekk borom xam-xam 7 ans moo tax benn boo xam ne wax Abdou Karim Khoudair yal na ko yàlla sàmm ni ki nga xamante ne moo saako xam nekk taalibul ilm bu defee six ans yoo xam dafa concentré wu jaar fi mu war a jaar day nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla ku ñu ku xam la mu ràññee mën a leeral nit ñi li nga xamante mooy seen diine kon li ñu wax rek mooy yenn saa nit ki xër mën na la yóbbee yenn saa nga tàbbi ci loo xamante ne naka sudul noonu la moo tax loolu tamit lu jar xel la commencé ci xam-xam bi du jeex mu commencé ci xam-xam ba du jeex commencé xam-xam ba du jeex commencé fi du jeex wala commencé ci ben cheikh parewul fofu dem ci keneen après yooyu yëpp da fay nek lo xamanteni wax deug yàlla fawdaale ci talabul ilm kon loolu nit ki nako ko maytandiku moo borom xam-xam comme nima ko waxe sañu Ibnu baz lañ dan jàng moy téré yu ñu xam yo xamanteni ay téré la yo xamanteni yu ñu ay tasili ay mutun tasili ay yakh la yo xamanteni yu am solo mo xam ci walu fiqh wala ci wàllu naxu ci wàllu xadis ci wàllu pas-pas aqida yooyu boo ko jàngee par am na téere yoo xam ne jarum koy jàng mën nga ko jàngaleel sa bopp moo tax moo tax boo xam ne nekkul téere yëpp lañ jàng nekkul dañoo toog ñu tëral leen saxil buxaari bi ñu paree ñu saxil muslim bi ñu paree sunan abi daawud bi ñu paree déedéet loolu mënta nekk sax maam waxtu boobu da nga koo mën a am kon liñ bëgg mooy xam-xam dafa am li nga xam ne mooy al usul mooy cosaani moo tax borom xam doon jox wax benn règle bi am solo man xafida man xafida al mutun xaazal funun waaw man xorimal usul muniyal wusul képp ku ñu xañ cosaani xam-xam doo mës a egg waaye képp koo xam te mokkal na yaxu xam-xam yi kooku nee na xaasal funun dina dajale li nga xamante mooy fànn yu bari kon loolu tam lu mënta ñàkk la kon wax dëgg yàlla loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax mooy di yittewoo li nga xamante ni mooy cosaani xam-xam yi téere yi nga xamante ni ay yax la borom xam bind ko mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu mucc ayib la ñu ciy tàmbalee di ko mokkal fànn bu ñu jeexal rek doog a dem ci beneen fànn loolu tam dañu dimbali nga xam fànn ba ñuy jeexal dañ koy maîtriser par exemple tey yow boo mokkaloon li nga xamante ni mooy al mi fi naxu al kalaam huwa lafdu al murakkabu al mufiru bil wadaai ah wa aqsaamu thalatha ismun wa وفعل وحرف جاء لمعنى nga mokal loolu da nga gis ni yow ba nga nek xale nga ko mokkal mais balay yang koy pek motax mokal mokkal bi tamit lu meunta ñak la mais nga mokal téré bo xamanteni yax la bo xamanteni buñu wattu la waye tamit bu mucc ayib la bu ko defé bo paré ci lo nga dugg ci benen fan ñëw ci lakhdari ha bismillahir rahmanir rahim wa salallahu ala sayyidina muhammad ba mu jeex bo paré nga ñëw ci xam-xamu tawhid benen ngay def nonu maam fan par fan bépp boo jangari nga xam di ko maîtriser boobaa loolu la dimbali ci li nga xamante ne mooy nga bañ a tabbi ci alfawda mooy ci euh, tambambalu ci li nga xamante ne mooy sàkku xam-xam moo tax boo xam bokk na ci yi ñu joxe mooy nit ki euh, di bañ a boole ñaari fànn ci même instant jël fii jël fee kon jël benn fànn bu jeexee ci téer boo xam ne bu tënku la nga xam koy jeexal ci waxtu bu gàtt nga doog a jàll ci la des boo paree jàll ca la des boo paree tam ne la dimbali nga maîtriser li nga xamante mooy xam ba ci fànn boo paree rek daanaka yow dootoo ko soxla fànn boo paree di nga ko maîtriser di ko tamit aussi tamit di ko muraajaa kon loolu tamit bokk ci li nga moom mooy moom euh, dimbali euh, ki nga xamante mooy sàkku xam mu bañ a dajale ay téere yoo xamante ni yu bari la mais fànn bu mu paree rek jël ba ca des tamit di mokkal li nga xamante mooy yaxu yaxu xam-xam yi mooy almutuuna ilmiya ndaw yi waaw di ci def li nga xamante ne mooy at tadarruj aussi tamit yittewoo li nga xamante mooy ulumul aala mooy xam-xam yi nga xamante ne wax dëgg yàlla xam-xamu ki lañ koy tuddee ay moyen la pour nga mën a dégg alquran ak sunna parce que xam-xam dafa am ulumul maqasid am ulumul wasail xam-xam yi nga xam jubluwaay la xam alquran xam sunna xam pas-pas am xam-xam yoo xam da lay dimbali ci loolu lu mel ni xam-xamu naxu grammaire ci arab ak xam-xamu ilmu tafsir nooy def ba xam li nga xamante ni mooy tafsir quranu karim kon loolu lépp dafa bokk ci li nga xamante ni lay dimbal la bokk na tamit ci mbir yi nga xamante al manhajiyya fi talab mooy nit ki di def takraar di répété li nga xamante ni mokkal na ko loolu tam lu mënta ñàkk la parce que xam-xam na ko Sufyaan ibn Uyayna waxee woon rek mooy juróomi mbir la mooy da ngay njëkk a déglu xam-xam da nga koy dégloo pare jëlew ci ki nga ko war a jëlee mooy cheikh boo ko dégloo pare nga daal di jéem a comprendre al istima summa al fahm boo boo fahmoo ba ba comprendre nag nga xamante ne yow li nga dégg comprendre ko nañ la ko waxee comprendre ko noonu nga daal koy mokkal boo ko mokkalee quatrième état bi nag mooy nga jëfe ko boo ko jëfee nag woote jëmale ci moo tax mu ne al al istima summa al fahm summa al xifd ثم العمل ثم النشر كون جرومي تي لا خام خام دي تخاوو دي تخاوي بوغا ريفي كون بوكو نا تي ليغا مولاي ديمبالي يو دوما ادم غاي ريبيتي ليغا خامتيني موكال نكو تي ما باينا فاينتين اخرى تي وقت بو جوغي تي وقت بي ديم تي بين وقت كون لي بوكو نا لو خامتيني اي مبير لا يو خامتيني يو مانتا نياكون لا نجنجوكو بوكو تيم جي ميري ام سولو موي نيت كي تيم ام خاليمه كوم نين كو سان امام احمد رحمه الله تعالى فوم تولون مي يور خاليمه دي بيند ريك kon nit ki ne góorgóorlu tamit di bind fu mu te fu mu déggee am njëriñ rek daat koy leen daat koy kose bind ko bu ko defee loolu tamit dina ko dimbali euh, mu wax dëgg yàlla dajale xam ci diir boo xamante ne bu gàtt la ànd ak loolu lépp nag li ñuy mujjee mooy del ñaan yàlla chaque jour mu defal la tawfiq yàlla bu la defalul tawfiq ak ndimbal wax dëgg mën nga da ngay da ngay tañax tañax yi ba sonn mais dara doo ko am kon li ñu wax fi yépp nag la nga xamante mooy ñoom waxtal gi mooy di ñaan yàlla subhanahu wa taala tawfiq allahuma waffiqni fi dunia wal axira ci rawatina ci waxtu yi nga xamante ne ci la ñuy ci lay nangoo ñaan di yàlla mu defal la tawfiq ba li ngay jàng mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla lu mucc ayib kon ñu ngi yem foofu incha allah waxtu bi ñu joxoon jeex na yàlla na yàlla defal tawfiq wallahu taala ala wa alam أخي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا